seyduna muhammad ku bëgg yoneen defal ni nu màggal seyduna muhammad fayzaati tam waasifan wa musawiqan ma lam taqul wa rabbuna la tunqadi ahlan bi sahril xayri sahril mawlidi shahri rabbi wa mahzanil mutawahidi شهر الكريم ومد كل المعظم شهر العناية في استياق محمد ما بقي ينن سيدنا محمد نن المراد بنيل خير المرامنا كدفني يال نغا زيارة سيدنا محمد ما لم ينل غير يوم المصعد الشيخ ألف سما من خوي سيدنا محمد كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله nit al muraada bi nay li xayril maraamina yonentu bee baax siduna Muhammad wa yagfir lakum dunubakum wallahu gafurun rahim nit al muraada bi nay li xayril maraamina ana ku bëgg yoneen qul atiu llaha warrasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbu alkafirin yàlla li mu bind yëpp sayduna muhammad la ci gën a bëgg maalam yanal xayra yowmal masadi sayduna muhammad moo tax Goethe écrivain allemand mu ne j'ai cherché dans toute l'histoire un exemple un modèle d'homme parfait et je l'ai trouvé chez le prophète arabe Mohammed seyduna muhammad moo tax mu feeñu ak waxu yàlla ba muy naan wala qad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana seyduna muhammad yàlla ni jox naa leen seyduna muhammad muy un modèle d'homme parfait eh, Seydina Muhammad moo tax bu bëgg rasulullahi texe ne àdduna texe Allah billahi maa bëgg yonen wax leen Seydina moo tax ku bëgg yonent bi raw nga àdduna waaye raw nga Allah ay waay ku def nii yàlla na nga giseeg Seydina Muhammad ndax Muhammadun xaqun yusaa'u bi xaqihi rusulun ataw min nuurihi almutamaddidi Muhammadun xaqun yusaa'u bi xaqihi rasulullahi ci boppam mooy dëgg te mbooleem dëgg ñoo ko génnewee ci dëgg rasulullah rusulun ataw min nuurihil mutamaddidi leeram dikk na leeru yonent bi dikk na ngir lan tëbbu jaam yi ci defar jikko ndax yonent bi mission wom ñaar la muy defar jikko yi ak yërmande ci kaw jaam yi moo tax mu déclaré ne innama buistu li utammima makarima al axlaaq man rasulullahi dama ñëw ngir mottali tedd ngay jikko waaye yàlla ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wa lahu al imamatu والقيادة في الوغى سيدنا محمد وتلألون تافو ملامع أسجد كان بنو اليونن أكرم بنور ذاتي كنز معارف أكرم بسر الكائنات المنجد سيدنا محمد أكرم بمن هو aminun wa mu aminun misbaax ne sang bi mooy mir aati ayni zaati fii zër mawlidi boo ko bëggee dem aljana boo ko soppee dem aljana boo ko tuddee doom dem aljana buñ lu ko tuddee nga dem aljana boo ko ziyaaree dem aljana misbaax yaa baax maam sama may sayduna muhammad asalaamaaleykum mbokk yi ku dégg kàddu yu am daax yooyu xam ni diine woote na islaam woote na kan ma woote Chérif Misbahadine Ababacarine Haydara lan la woote lam daan woote mooy tàntal maamam Seydina Muhammad tabaarakallahu di ko defee fii ci Mbuur quartier Mbuur Tukulóor waaye nag tabaarakallahu mu aw fa mu daan aw mooy am ci ay ndigalu baayam ay ndigalu sëriñam kan tabaarakallahu xalifa général bu Chawmarul Fouti di sunu maam Cerno Muhammadal ak tabaarakallahu sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général de Tidiane tabaarakallahu nag di ko hommage sunu maam ja na Muntaga Taal kon tabaarakallahu Cerno Madani bis baa ngoog sa bis la Chérif Misbah na ku ko wax wax ahlal bayti muy waa kër Seydunaa Muhammad jiital ci Chérif Makki tabaarakallahu di woo Chérif Ibrahima Atijaani waaye ku ne xam na ne Chérif Misbah chérifu département bi la kon waa Mbour gépp ñu ngi leen di waaye waa ku mel ni car Serif Abdati Aydara tabaarakallahu bés bi bisim la ak waa Daaru Salaam Ndogondo xalifa ba ñu ngi koy woo tabaarakallahu képp ku naan ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci bisu sayduna muhammad bu tedd boobu bis bi kañ la le 8 juin waaye lu jiit le 8 la 7 dañu def xadratul juma le 8 mooy cérémonie officielle bi ci la gàmmu gi tabaarakallahu sërif di ci woon ak daayira yi ak julit murit tijaan xaadir laayeen ndax boo ne Chérif Misbah doo bàyyi murit doo bàyyi tijaan doo bàyyi xaadir doo bàyyi laayeen ndax nag doo bàyyi ñeseen ndax moo mel noonu ndax moom moo yaatu ginnaaw tabaarakallaahu ay dara talal na ñëpp loxo waaye ma nag daayira sopp ahlul bi nga xamante ni ñoo nekk fii moom muy seen responsable moral ñu ngi woo képp ku naan ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammad rasulullah di woo nag waa mouvement yi waa groupe tabaarakallaahu ñi nga xam ni moom moo leen tànnal tur képp kuy sopp na bi di sa fii ci mbuur ak foo mën a ne ci mbuur Chérif woo na la ci bis bi wasalaamualeykum wa rahmatullah. asalaamualeykum sama mbokku jullit yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ak seen tur ak seen sant di leen woo ci suñu bés bi bés bi ku ko dégg nga xam ne bésu diine la bésu lislaam la bésu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bésu Chérif Misbahouddine Aidara fii ci Mbour Tukulóor bi nga xam ne at bu ne ñu ngi koy def ren ji mooy suñu vingt deuxième édition ñu ngi koy def fii ci bayaalu Mbour Tukulóor bi ci booru jumaa ji bés bi nag bés bu ñu sopp la képp koo xam ne mu ngi wax ci turu ashadu an illah ilaha illallah ashadu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay woo ci bés bu màgg bi man maa ngi woo sama mbokku jigéen ñëpp di woo mbokku daayira yëpp ak tarixe boo mën a nekk ak foo mun a nekk ci biir Mbuur wala ci département bi maa ngi woo bàjjenu gox yi maa ngi woo association femmes yi réseau femmes yi maa ngi woo femme de développement yi képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci diine nekk jigéen nga nekk ndaw wala mag nekk fii ci biir Mbuur oo nañ la ci bés bi nga xam ne bés bi ñu fonk la ñu ngi koy def la 7 ak le 8 le 7 bi am na xadara wàcce kaamil le 8 la gàmm gi ak cérémonie officielle maa ngi woo administration bi di ko njëkkee ci suñu préfet bu baax boobu muy Sayar Ndaw ak ñim àndal euh, maa ngi woo aussi le maire de la commune de Mbour El Hadji si la maa ngi woo ñi nga xam ne mairi yi ne ci département bi ci commune bi responsable Magué seen ñoom Pape Amady Ndaw Ousmane Gueye maire Sandiara Serigne Gueye Serigne Gueye Diop ak adjoint yi bàyyiwuma kenn mairu Ngeekox bi Pape Diouf sous-préfet Fissel Mbadane bàyyiwuma kenn ci département bi maa ngi aussi aussi responsable politique yi yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune bi le président du conseil départemental El Hadji Sallou Samb fàttewuñu ko Cheikh Issa Sall aussi bu am dem fàttewuñu ko Pape Amadou Ndaw APDA fàttewuñ ko ñoom njóogu en responsable politique nekk fii ci biir Mbour Tukulóor bàyyiwuñu kenn Adja Kani Sagna ñu ngi koy woo Ajaratu Sira Ndiaye maa ngi woo aussi ajaratu Yaasin Ndaw bàyyiwuñ ceen daal kenn ku ne woo nañ la ci bis bi nga xam ne bis bu ñu sopp la asalaamualeykum wa rahmatullaahi asalaamualeykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu euh, di leen oo si bésu euh, Misbaahu Jinne ay dara bi le 8 juin incha allah fii si mburtu Tukulóor di woo waa Mbour di woo sunu chef de quartier bi di woo waa gàdd ga di woo waa Mbour Séeréer kaw waa Séeréer suuf Euh, waa sant su waa Coose waa 11 novembre ba waa Grand Mbour di woo waa Salaam di woo ñëpp zone Sonatel fàttewuñu kenn woote bi nag woote jàmm la woote Chérif Misbahoudiine Aïdara le 8 juin incha allah rabbi fii ci quartier Mbour Tukulër euh, surtout fii jigéenu Mbour Tukulër yëpp ñu ngi leen di oo comme ni ñu ko daan defee at bu ne ñu génn dalal gan yëpp wasalaam. asalaamualeykum bandiraɓe julɓe min salminamon caggal nde jettuɗen allah juulɗen nelaɗo allah sallllahu alayhi wa amin nodda mon e ñalawma misbahudin aydara ñande le 7 le 8 juin le 7 o ko hadratul juma watteɗo le 8 o woni cérémonie officiel o e gammo amin nodda bandiraɓe julɓe fof kala nototoɗo e mbimami mbimi e mbimami min erimama kala nanɗo ngo erago woni kartal ma garon e keewal enen jeeyi enen enen enen haalpular en enen jeeyi ko haalpular noddi enen fof notoɗen en on jarama bisimillahi assalamu aleykum no ha jarama haaldini tan fuuranko fof noddama ha tengti e baynaji naaɓe o noddama e erago teddugo noon sukaɓeɓe fof ko nder hen goni ɓe noddama yoɓe gar ɓe en gara mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah di woote di woote lislaam di woote Cherif Misbahuddin yi ku wax Cherif Misbahuddin wax maam maam Ali Thiam waaye xalifa ba di kan Cerno Ahmadu Thiam mu boyi naaji mbokk jullit yi ci teewaayu ak ci présence waa Casamance gépp imam Fadera bu euh, bu Casamance bu Mansamba moo ngi leen di woo ci bés bi ak seen teewaay yëpp danañ ko fi séentu dinañ fi am teewaayu ñi nga xamante ni mooy daayira yi bootu ci ginnaaw Chérif diin di daayira soppu nabi un deux ak trois bii ci Mbuur Séeréer bii ci Gàmbi bi ca Grand Mbour ñoom ñëpp di leen woo ci seen bés bii ndax ñoo ko moom di bésu Seyduna Muhammad ñu pare ne ko kan ki nga xamante ni mooy Cheikh Ibrahim fay di kóllëre bu yàgg ci Chérif diin marraine bi di ki nga xamante ni mooy Soxna Medina Tall di bésam moo ko moom di soxnay Chérif Maki Haydara di bésam ñu jagleel ko ko kon lépp lu mu am ñoo ngi leen di woo ci bés bi di bésu Chérif diin ñu ciy woo kan ci bés bi Cheikh Abdullahi Thiandoum mu Malicounda ñoo ngi koy woo ci bés bi ndax mooy généralu Chérif Misbahoudine bés bi bésam la di ci woo Imam Daouda kamara bu sànjara ak njabootam gépp ñu ngi leen woo ci bésu Seyduna Muhammad Chérif Mamadou Lamine itam mi nga xamante ni moo doomu Chérif diin di léppam ñoo ngi koy woo ci bés bi ak njabootam yépp di leen woo ci seen bësu maam oustaz Ali si itam di généralu Seyduna Muhammad di généralu Chérif diin ñu ngi koy woo ak bépp ndaw bi nga xamante ni mu ngi ci keppaaram ñu leen di woo ci bésu Seyduna Muhammad Chérif Cheikh Sadna Aydara bu Dakar ñoo ngi koy woo ci bésu maamam bi waaye ci bésu xaritam di Chérif Misbahuddin waaye mbokk yi lii di am war a amee sous le patronage de son excellence monsieur le président de la République du Sénégal Macky Sall ak madame la première dame Ajaratu Mariam fay Sall monsieur le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye tamit ak monsieur le préfet du département de Mbour monsieur Sayer Ndaw di woo ñépp ñi nga xamante ni ñooy maire yu wër li nga xamante ni mooy département commune de Mbour ñu fàtte monsieur Omar Youm le maire de la ville de caajaay ñoo ngi koy woo ci bés bi mbokk yi waa Joal ñoo ngi leen di woo di dental Adama Aïcha yëpp imam Matar Diallo bu Joal ñoo ngi koy woo El Hadji Idrissa Ka bu Joal ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp inchaa allahu fa tabarakallah ci bés bi nga xamante ni mooy bésu Chérif Misbahuddin bi waa Mauritanie waa Nouakchott waa dibu yëpp ñu ngi leen di woo ndax seen mbokk seen xarit moo woote di kandi di Cherif Misbahuddin bis bi nga xamante ni ñaar la muy le 7 ak le 8 juin incha allahu le 7 ñu def xadara général di ci woo ñëpp bakk ci yàlla kañ ci yàlla fii à partir de 17 heures mbokk yi bu ñu xëyee le samedi à 10 heures incha allahu ñu def li nga xamante ni mooy wàccee kaamil rendre ci hommage ki nga xamante ni mooy Thierno Mountaga Tall incha allahu ñoo ngi ciy rendre hommage di ko ci ñaanal yàlla ak ñëpp ñi nga xamante ni dëddu nañu àdduna ñi nga xamante ni di maam tuuti caam suñu maam ju baax jooju dañ ko ci rendre hommage ñaanal ko ci yàlla ak bépp néewu jullit Adja Ummi Siis dañ ko ci ñaanal yàlla incha allahu ak bépp jullit boo xamante ni génn nga àdduna waaye am nga koo génnale àdduna dañ leen ci ñaanal yàlla yàlla baal ñëpp xaq incha allahu le soir à partir de 17 heures gannaaw ba ñu defee añ yi ba noppi déjeuner yi 17 ñu woo leen fii ci bayaalu mbuur géej ñu war a def cérémonie officielle mbokk jullit yi ngeen fekk fi kan Cherif Abbas Diop mu bégal leen ci Seyduna Muhammad waaye nag mbokk jullit yi yàlla wàcceel ñu benn alquraan yàlla wàcceel ñu benn yonent muy seyduna muhammad mu ñëw ngir defar jikko yi mu ñëw ngir indi yërmande waaye lislaam bi am ay divergence d'opinion diversité islamique fii la moom lañu ñu war a waxtaane wax lu waral xàjjaloo bi ci monde islamique bu ngeen fekkee fii Cherif Abbas Diop Cherif Misbahoudine ñu wax leen ci lan moo waral divergence ak diversité diversité d'opinion dans le monde islamique wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hamdan li rabbi allazi xad wax ci texee ngi feeñ ci xol bu bëgg siiduna muhammad nanu fasta farlu ñu ji maroy jikkoy yaa rasulallaay ruu yaa ngi naane xol yaa ngi roote ci leerug samaam siiduna muhammad sang bi du mer du xasta du lor mindéef yaa rasulallaay boo ko mu may la siiduna te boo ko tooñee mu balla xol baa rafet ak bëri yërmande seyduna muhammad ku baax la ku maandu ku teey ku yiw laa ku wér ku wóor la ku dal la seyduna muhammad ku xam la te muñ tey muñ sang baa ngi samaam ji du gëddu surgaam seyduna muhammad du gantu soxla yaa rasulallah lu am mu wax ni ndogal Siduna Muhammad moo xam boroomam kii moo dëddu àdduna ana soppi Siduna Muhammad Muhammadul Mustafa maa bëgg yoneen sang baa ngi ni yaa Rasulallahi kii mooy miraati zaati laay kooko yoneen Siduna Muhammad ah di wax ni gàmmu gaa ngi noonu ndigal la fa daan jóge rek la jóge tabaarakallahu sunu sëriñ bu baax ba Cerno Muhammadul Basir Taal xalifa maam Cheikh Umar tabaarakallah waaye ku ne xam na ni doomam ju baax ja Cerno Cheikh Al Bachir di mbokk ci shérif di wëllëreem di léppam tabaarakallahu Cheikh Umar Al Bachir ñu ngi koy woo ci bis bi shérif nee na bis bi sa bis la comme na nga ko daan defee ci waxtaan yaag tabaarakallahu ak teewaayu teddi kon daal bàyyiwuñ kenn mboolem dawaa ir yi dawaa ir bu nekk ci mbuur ak département bi shérif mu ngi lay woo ci bis bi diwoo nag chef de quartier bu Mbour Tukulóor Seydou Ba Chérif nee na bis sa bis la nga dalal ko gani tabaarakallaahu waa Mbour Tukulóor ibbi leen kër yi ibbi néegi fu ne gan dina fa jóge waaye tabaarakallaahu nag xaal pulaar ñu xajoo ay gan lanu kon bis baa ngi noonu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah rabbil alamin